Thank you. ñaari waxtu ci Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi li gën a fees ci bopp xibaar yi mooy nag njiitu jori Mouhamed Boun Abdallah Dionne jëf na ñetti waxtu ci kanamu ñu di député ca penc ndaw réew ma ngir wax nag ci programme ngur gi di PS waaye teer it fàttewu ko lu jëm ci wàllu fii ak 2030 lépp lu ñu fi naal waxtaane na ko den ci jokkoo suñu naatango Issa ku jega ñu koy xaar nag ay ponk yu bari mbirum Khalifa Sall lu jëm ci wàllu bor bi ni Sénégal da ko yëndu ba diis ak yeneen ponk ci biir xibaar yi mbirum Khalifa Sall moomee sax ci la ndax ki yorooy kàddoom di élage ba moom yëkkati ay kàddoom ne nangoo joxe benn milliard bi ak juróom-ñetti téeméeri million taxul nag li ñu koy jiñ mu nangu ko dafa fekk ni kay génn ci biti ut ab défense am boppam moo gën te yoon sax moo leen a ñu sàkku liberté provisoire naam sax dañoo wañ loxoom ak dërëmam demu ci waaye jege ñaaleem ak avocat ñoo wut boobule xaalis tey la seen alal a jàppale ko ci mbirum publicité bi am na sooxee ci biir Sénégal ca penc ndaw ma dañu ko doon waxtaane ba jëruñu jëlwaal communication jaar fa député yi ni na séddale bi mu bañ a nekk séddale bukkeeg njuur ndax téeméer boo jël eh, juróom-benn fukki eh, ci état ci télé rajo publique lay dem eh, ñu fee nekk daanaka ci askan wi privé yor liggéey bi bari daanaka dañuy ñam dong ñu yëngu ci taskatu xibaar yeeg noonu lañ ci àndee jot na coppite am ci séddale bi yemale. xibaar bitim réew tàggat yaram ñaareelu xaaju xibaar benn ponk lay doon yéene kaay li ñu xëyee tey dinañu ko tëjee xibaar ci Walf TV leexu jamono ci kanam tuuti ñu faram fàccee ci xibaar yi dañu koy dooree rek ci tënk mbirum nag kii di njiitu jëwriñ Mahammed Boun Abdallah Dionne def na ñetti waxtu ca kanam mu député ya ca penc ndaw réew ma ngir waxtaane nag programme nguur gi ak gouvernement bi ci liggéey bi ñu toll fii ak 2030 lu jëm ci programme e wax na ko waaye tamit seen TGV boobu di TER waxtaane nañ ko yenn ponk ci wàllu ndox meeg courant bi ba ci gox goxaan yi tali yi ñu fa defar bàyyiwul dara ñetti waxtu yoo xam ne nag daxañ na ci lu bari waaye nag député ya rawatina ñu fecc ci ku jega jamono ji ñoo yor kàddu ga ñu ngi koy laaj benn benn dinañ ci ñëwaat ak suñu naataango ah, mi di Issa Tine mbirum Khalifa Sall fàttewuñu ko waaye it bor bi ñu Sénégal da koo yenu ba diis junj nañu ko fa dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo ñu des ci déclaration bi nga xam ne nag kii di maître Abdoulaye Wade wax na ko ci wàllu politique bi muy nag déclaration boo xam ne taxaw na temm ci lépp loo xam ne rek mooy PDG bi euh, ci atum 2014 ñu waxtaane ko lu jëm ci wàllu respect lépp lu jëm ci wàllu mandat jafe yi nga xam ni am nañu ko ci wàllum juróomi téeméeri milliards di fonds yëpp lépp du nañu ko Doudou Wade la ci Abdou Khoudous Diallo jokkool ñu teewlu ko. déclaration général ba politique dañ ko escamoté parce que la ca waroon am ci ñuy tontuté ak ak député yi amul. moom li tax déclaration ma opposition bi mën ko mën ko waajal. mooy dafa am lu mu waxoon barki démb. mooy la 2014. dafay waxoon déclaration politique ne fii laa jëm ak yéen loolu mën a natt bi mu commencé li mu jëkk a yëglu ci boppam mooy que nekkoon na ci assemble bi Macky Sall nekk fa président fa la Macky Sall jëlee ay responsabilité xam ne war na mën a def dara moo tax mu am yaakaar ci assemblée bi moo tax mu def fa benn déclaration ne damay rafetlu tey wax leen ne ci li nga xam ne moo xew ci àdduna bi tey le président de la république bi ñu fal le 25 mars 2012 jël décision wax leen ne tey ma waar leen ko fii que mandat bi nga xam ne moom la am pour juróom-ñaari ma yeggali leen ne loolu du am dina ko def juróomi at loolu mësul am ci histoire adduna bi te lu lu adduna bi di naw ëllëg la loolu déjà rendez-vous manqué la mais bari na yeneen yeneen yeneen yeneen voilà annoncé université du Sine Saalum bi nga xam ne bi ñu fay dem ñun def nañ ci 500 millions. pour les études ne dina ubbi en 2016 l'université de Dakar deuxième université dina ubbi de premier janvier 2016 ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci la désengagé wu ci aéroport bi ne aéroport bi dafay toog fii yooyu yëpp donc am na ay rendez-vous yu mu joxe woon yoo xam ne yi tey ci loolu mu waxoon opposition mën na ci taxaw nekk ay loo xam ne lii mooy tax ñu élire Macky Sall damay loolu man yaakaar naa ko mais waxuma ne loolu mooy am dama ko njort. Sénégal fu mu toll tey euh, ñëpp jàpp nañu président de la république Macky Sall dafa génne ci xelu Sénégalais yi dañu am déception ci moom. Doudou Wade doon wax na ci ponk yi nga xam ni ñu nga cay xaar njiitu jëwriñ ci déclaration politique générale am te ñu koy waxtaane ci jamono ji lu ci mel ni dige yi ay juróomi téeméeri milliards ci programme boobee ñuy wax fonds te gisaguñu ko Doudou Wade doon jokkoo ak Abdou Khoudoss Diallo ci mbirum Khalifa Sall junjoon nañu ko ñi kaam nag ñoo wañ loxo ma ki mbokk ma ki jege ñaaleem ba daal dinay jeex rek benn milliard boo tegal juróom-ñetti téeméeri million mu nga ca table chambre ñu koy xaar jamono ji ndax mbir mi nu muy mujjee dañ koy koy bàyyi bàyyi néggandiku ko am de dañ koy gàntal ci fàttali nag fukki fan ci gannaaw la ñu teggi woon mbalaanu kiiraangeem ñu fàttali rek ñoom ñu yoroo kàddoom bokk na ci El Hadji Ba ni nag dara moom dugg ci moom meeru Ndakaaru dafa fekk ni kay ay jegeñaaleem ak awokaam ñoo dajale tay la seen alal Dakar ba Touba ba mën a matal yooyu le koppar kon nag dinañ topp boobu le xibaar ba xam fu wànneen di mujjeeku gëtam ñuy fàttali ne Khalifa Sall mu ngay xaar chambre d'accusation ba xam ni mu yëyee yàbbi ci moomu le mbir ñu wax ci leneen muy publicité yi ca penc ndaw réew ma ko àddoo ñoom député yee ci artu nag jëwriñ ñu dénk wàllu communication ni ko jot na séddale bi di yemale ndax téeméer boo jël juróom benn fukk ya daanaka ci et euh, média public lay dugg maanaam ñi liggéeyal askan wi kon nag ñu nekkee ci privé yi ñoom it war nañ cee jot seen wàll ndax li ëpp ci liggéey bi ñoo koy gàlloo te koppare ñu jot néew na reportage bi ci xadisi laa def ak Pape Gora Gueye ñi yëngu ci wàllu tasi xibaar yi ànd nañ ci député yi ni coppite war na ci ñu ànd teewlu publicité nekk pàcc bu am solo ci liggéeyu tasim xibaax waaye jamono ji ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci économie waaye tamit ci mbirum média ñi ngi ñaawlu bu baax a baax par parloo bu ñu nemmeeku ci bu ñuy doxee publicité yi. li organe public yi maanaam maanaam RTS yi ñu am mooy état bi da leen di subventionné walbatiku ñun ci suñu facture courant. képp ku am courant dañoo jàpp ne yaa ngi seetaan télé kon ñoom am na ñun suñ jufal facture si lu ñu leen di defal ñun nit ñi maanaam dañ ñu joxe redevance publicité moo yor média publicité moo yor presse te boo xoolee léegi euh, si presse Sénégal euh, presse écrite rek moom la euh, moom mooy defar benn produit ñu koy jënd ñu si des ñëpp day leen di déglu gratuitement. économiste bi may sa baabu sax mi ngi woo nguur bi ngir mu daal di gën a mën a ñoŋal li nga xam ne mooy secteur publicité bu ko defee presse privée bi mën cee gis boppam bu baax. publicité bi mën nañ ko xayma ba ci ay ñaar fukki milliards waaw ñaar fukki milliards nag sooy xool benn ñaar nit man ko war ko jël loolu mooy problème bi xam nga euh, une chose mooy sax nga ne waa euh, public waa public bu leen laalati publicité. mais beneen ba aussi mooy Sénégal soo xooloon comme tu France day am régie publicitaire maanaam foo xam ne nii kooku soo fa demee moom jox ko publicité bi moom day xool ci àqulaayu taala télé bu ëpp doole émission bu ëpp doole nga xam ne dootu am njuuj njaaj yi nga xam ne fii dañ koy xool seetlu Sénégal yooyu la ñu war a bàyyi te loolu actuellement moo yàq marché publicitaire bi kii di Mamadou Ibra Kane nekk président wu conseil des diffuseurs ak éditeurs presse ci Sénégal moom nee na code de la presse bu bees bi jël na pàcc bu am solo ci mbirum publicité ñu gën ko ñoŋal. boo xoolee RTS moom société nationale la donc c'est financé sur le budget de l'État euh, il faut ñu xool loolu naka lañ koy réguler dégg maanaam euh, ci biir code de la presse bi nga xam ne voté nañ ko euh, ñun euh, dañu ñaanoon. ñu financer les médias euh, publics sur le budget de l'État ce qui fait que euh, télévision comme RTS wala rajo aussi comme RTS moom dootul publicité moo koy financer sur le ëpp mais budget de l'État léegi xaalis boobu muy bàyyi da nga publicité boobu muy bàyyi dina dëgëral euh, les médias privés publicité buñ ko xaymaa ci koppar toll na ci ñaar fukki milliards waaye seetlu buñ ci def mooy ni presse publique bi moom dong mooy daal di jël lu toll ci 60 pour cent paaru marché bi bu buñ ci yokkee ni état daf leen di subventionné ba léegi koppar gu bari googu ñoom rek a koy jël féetoo ko presse privé bi di ko métitlu bu baax a baax di dem ba koy tuddee yëfa kumba am ndey ak kumba amul ndey yi nekkee ca département bu Guinguinéo askan fa nekk ci seen ndaje la ñu doon ñaxtoo ni mat nañu junni ak juróomi téeméeri doomi aadama waaye ndimbal la leen fa fekk dafa néew mere nañu lool nguur gi lim nañu lu jëm ci wàllu ndox ak courant seen njàngi doom seem ba sax amul courant lii bi labo ba dafa tagga témbee cas de santé ba néew doole lool ci wàllu faj mi ba ñu ngi koy jéggaani fu ne suñu naataango Alassane Ba moo fa nekk askan wa dëkkee ci saatewaal yi bokk ci commune bu xel comme Birane takk ay morceau yu xonk cur amal dox ñaxtu ngir laaj euh, ñu defal leen courant ci seen dëkk boobu nga xamante ni lu toll ci junni ak juróomi téeméer bani aadama ñoo fay yeewoo. Ah, dëkk bi moom rek lañ bëgg moom lañuy ñuy moom lañuy ñuy dundee bëgg nañ képp koo xam ne mën nga dara nga jàppale ñu ci courant bi ñuy wax nii te ku nekk xam na ne tey mondialisation ci lañ nekk. war nga nekk sa biir néeg nekk biir Amérique war nga nekk sa biir néeg nekk Arabie Saoudia mën nga nekk sa néeg nekk ba Sine Populaire waaye ñun loolu mënuñ ko pourquoi mënuñ ko parce que amuñ jumtuwaay buñ koy defee muy courant. cheeraayu gasoil bi ñuy jën ngir groupe bi mën a doxal forage bi nga xamante ni dëkk yépp ci lay naanee ak ñàkk jëfandikoo matériel laboratoire bu nekk ci seem ba ndax ñàkk courant sonal na loolu wéy jëfandikoo yi ak waajuru ndongo yi. président Senghor wàcc na fi euh, Macky ci boppam wàcc na fi Satewali d'ailleurs moo inauguré euh, forage bi en 2001 beneen bi am na labo labo boobu bu fonctionné woon yaakaar naa ne élèves yi dinañu gën a mën a donc loolu aussi manquement forage baa ngi nii suñu ginnaaw dëkk yu bëri fi la naane ndox ndax ci réew mi lañ bokk bi suñ ko doon séddale il faut ñu jox suñu wàll kon nag ñu jox suñu wàll ci courant bi. case de santé bu nekk ci dëkk bi la nga xamante ni mi ngi bokk ci département bu ngin ngi néew digganteem ak Kaolack toll ci juróomi kilomètre jigéen ya fa dëkkee daanaka lañ ciy xaar gisuñ ci dara. bi demoon ñu cee jàppale te bëgg nañ ñu jàppale ñu ci lii poste de santé ndax ñun dañoo sonu bëgg nañ ñu jàppale ñu ci ñun ci jigéen ñi ndax boo seetee tey boo bëggee am doom da ngaa dem fii ba war jaxal te dafa sori ñu bëgg ñu jàppale ñu ci suñ poste bii nii mu mañ koo def poste si suñ kaas gii nañ ñu jàppale ci courant Macky Sall na saate waali du wax ne xamul saate waali nañ ñu jàppale ci courant ci fàttali ab miir lecture pour CM bi nga xamante ni daanaka dëkk-dëkkaan yi wër saatewaal yépp fa la ñuy jàngee ak responsable politique yu bokk ci APR te am yuñ leen diggoon te defuñ ko bokk na ci lu waraloon ñu amal dox ñaxtu bu yaatu boobu ca saatewaal yi Alhassane Ba Yaya Gissé yi bu dee ca Tambacounda moom doxu ñaxtu fekku leen ca waaye dajaloo nañu ay ndaw di fàttali nag ni dañoo sonn ci digg bi nga xam ni way politique ñu ngi leen koy def te duñu gis dara bi ci mujj ay financement lañu leen wax ñu bind seeni projet lépp mu nga ñu dugal ca suufu taabal ja ñu ngay soññee nag di xàddiwuñu ba Bali Danfaxa lañ ci teewlu mooy président départemental ba ca diwaan ba jiite ndaw yi ñu teewlu ko ak Alassane Alassane Diallo moo fa nekk. tey jii dañ fi daje pour euh, ñaxtu wala pour ñaawlu. Euh, discrimination bu ñu gis ci wàllu financement projet ANPEJ yi parce que tey jii lu mu def Tamba mooy que day promouvoir le chômage le désespoir la nekk di promouvoir fii ça fait presque deux ans ndaw yi bu ñu tënkee seen projet yi defar seen projet yi jox leen ko espère ANPEJ yi saytu projet yi tànn ci projet yi ñu naan mooy projet bancable si projet yooyu y' a 63 projets yu ñu xam ne sélectionné nañ leen sur les 63 le département de Tamba compte 37 projets ba léegi ndaw yaa ngi xaar am seen financement yi mot na ñetti weer léegi bu ñu ñëwee fii ànd ak benn banque ubbi compte yi depuis le 11 septembre te boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar gisaguñu dara luy nuroog financement ay jeunes région comme Kolda Ziguinchor ñu nga xam ne ñoo leen jiitu ci programme bi ñoom jot nañ seen financement ba ñuy commencé exécuter donc loolu ñun dañuy gis que ni euh, benn discrimination bu nga xam ne ni lu kenn ku ñu ko teg sulu DG Amadou Lamine Dieng moom la ñuy waxal ñu jox ndaw Tamba yi seen gëdd mu jox leen seen financement financement yi moomu ko xam ne ni 100 pour jeune u Tamba yi la Amadou Lamine Dieng bloqué ko ba tey jii donc ñu dañ ne du dëgg du yoon te su ñu deful dara ñu ngi wax euh, pose première pierre marché au poisson avec euh, le ministre Omar Gueye ñu dañu naan ndaw Tamba yi duñ ci dem te incha allah rabbi danañ xamal ni danañ yëglu jour boobu xamal leen que ndaw Tamba yi dañuy nekk ci naqar parce que dañuy joytu seen finance parce que ngay naan pose première pierre marché au poisson mais yow loo loo jot posé d' abord comme acte pour financer ndaw yi financer leen amoo droit amoo benn droit di di bloquer ce ce financement là parce que da a créer discrimination dañu ne loolu lañ bëgg mu mu arrêté. tey jii ñu jox waa Kolda jox waa Ziguinchor bàyyi waa Tamba ñu teg ko fan teguñu ko fenn phénomène li xam nañ ni que ni am na origine à Tamba. wan ñu wan seen yeneen ndaw yi aussi seen naataango yi que ñoom bëgg nañu des fii tekki fii tekki fii ci Tamba caax ab dëkk la nekkee ca diwaanu Jurbel ak la ko wër ndajem diine lañu fa doon amal seen gàmmu mbooloo mu takku teewee ko kilifay diine yeeg di fàttali ñàkkum kaaraange gi ñuy jànkonteel ca seen gox ba mënuñu faa yar leen teg ci nag aw yoon te leen ti ci ko amul kaat-kaat doo dem doo dikk mbaa ca yoon ba ngay taggateem bi lu jëm ci wàllu jumtukaay ndox ak courant ba ci njàngum doom yaar soxe na fa suñu naataango Mamadou Matar Sarr lañ ci yàndal bu amee ñu mere nguurug Sénégal ba ci lool askanu cax la gox bi nga xam ne mu ngi nekkee ci commune bu dànq seen ci département bu Diourbel nee nañu kat kilifa yi ngànk réew mi dafa mel ni dañuy indi ak gënale ci diggante këru diine yi ndax seen gàmmu gi bind nañ leen ay yooni yoon waaye furaas daldi xëddeen faale sax defuñu leen ko. gàmm gi nga xam ne gàmm cosaan la dégg nga maam dañuy dox ba sonn duñu am dara en 1900 2015 euh, am nañ audience ak. monsieur le gouverneur de la région de Diourbel mu dig ñu dig ñu tooy dig ñu tooy xepp waaye ëf mujjul fenn dara ndikul en 2016 encore ñu dellu demaat fa muy ñaareelu audience bu ci ne mu digaat ñu digaat bu gën a tooy waaye dara dikkul. ki may waxaat nag mooy El Hadj Macky Sall. nag lépp loo xam ne lii dañ koy jagleel waa sëriñ si ñun dañ koy jotagut. kilifa yi ngànk caq li ci ne li firndeel ne gouvernement bu Sénégal dëkk bi yittelu ko amul benn jumtuwaay bu mucc ay buñ mën a duut baaraam ne nguur a ko fi def. yoon waa ngi nii fa tabaarakallaahu bu yàgg ba léegi lu mat ñaar fukki at ñi def ko raaraan ne ko ñuulal France daal di xaneen gouvernement bu fi ñëw da ci def dara poste de santé ak dëkk bii nga xamante ni li ci gannaawam yëpp ni mu toll dara amu fi ndox mu neex dara amu fi kon nag loolu la xalifa bi wax ne dana xam ndax danañ ko cee boole wala daf cee bokkut. wala dañ ko cee seppi. ñun waa cax ñun jigéen ñi cax bëgg nañ poste santé bëgg nañ ndox mu neex bëgg nañ suñu wér-gu-yaram bëgg nañ ay financement loolu yëpp nag bañ ko dalee ñaan yàgg na te amuñu ci dara. kilifay cax dem ba jàpp ne mbir mi xamatuñu sax li muy nirool ndax dañoo mel ni ay jirim ci réew mi. waaye nag cax dafa mel ne jirim la ci biir ci ci biir réew mi loolu nag taaluba yi ñoo ànd ak mbokk yi ak xarit yi ak mboolem fu mu mën di nekk ni lii day kon ñun cax gi dafa bokkul daal xanaa ci réew mi wala dafa amul àq ci gouvernement bi. bu fekkee ne rek ah dafa am ku am ndey ak ku ma amul ndey nga wax ñu. ci fàttali nag cax gi dëkku diine la boo xam ne El Hadji Ibrahima Niang moo ko taxawal di góor yàlla boo xam ne kilifa yu mag yi nekk ci réew mi ñoo ko seede waaye ñii ngànk nguurug Sénégal gi moom dafa mel ni ba léegi mënuñoo càqi cax wi. kon mbooleem nitu yàlla yi wax Sénégal ñëw nañ seede cax wilaaya fi nekk. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr beneen gàmm bu ay tawat génn muy nag Missirah Dantila nekke ca département bu Saraya ci diwaanu Kédougou foofee te ndoxu courant waxtaane nañ ko ci seen bisub diine bi ñoom ñu ngay fàttali ne bu leen kenn fàtte ci réew mi la ñu bokk suñu naataangoo Soli Brahima Dabo. Missirah Dante la te mu bokk ci commune rurale bu Madina Bafe bokko nañ ci kër diine yi gën a réy fii ci région Kédougou ni dem démb nag foo sandi bal moo tax ndaxte talibe fépp la ñu jógee Guinée bi Bissau réew Mali Gambie Libéria ak ci biir Sénégal ngir participer ci guddi bii di mawlud nabi si teewaay borom xam-xam yu bëri ci wàllu diine l'islam ku mel ni El Hadj Oustaz Malan Dabo imam ratib bu Serakunda fële ca Gambie mii di conférencier bu mu jëlee kaddu ji nag waxtaan guddi bi yëpp daf ko aju ci liggéey yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laata mu ñaax jullit yi ñu man ko nangu liggéey ci tout l'islam naam diine l'islam taxoon nañu ba noppi waaye pour mu gën a dëgër ñii di sët Alpha Omar Tagna borom dëkk bi ñoom nag yëg nañ seen kàddu ngir jaawlu jafe-jafe yi ñu fi jànkonteel saa su suñu problème bi mooy toujours suñu route bi Missirah Dantela Nafaji quinze kilomètres la quinze kilomètres parce que quinze kilomètres bi dafa nekkoon route bitumée depuis quatre-vingt-douze 92 ba léegi route bi kenn mësul ko laal oto 4 x rek moo mun a ñëw Missirah Dante Alla boo amul 4x4 doo mën a ñëw fii ñu sommes très très très très enclavé donc dañuy ñaan président mu dimbal ñu ci yoon bi pour suñu taalibe yi nekk sous région yi mu mun a ñëw chaque année gan yi fi ñëw yëpp lan la ñuy def pour sangu lañ leen def pour naan donc loolu mooy problème bi fii incendie bi amee fii mënuñu ko mënuñu ko fay parce que amul ndox amuñu ndox suffisamment pour naan lan la ñu mën a jël ndox pour jëfandikoo pour fay safar bi donc loolu moo tax mu ravassé ndox donc dañuy ñaan suñu président de la république ngir yàlla mu dimbal ñu mu bàyyi ñu xel comme xam na dëkk bi déjà. kii le président du comité d'organisation gërëm bu baax a baax taxawaay le gouvernement du Sénégal ak it la société Sabodala Gold Operation. on tient à remercier tous ces acteurs donc nos autorités. il y a eu un appui de la société SGO. Ça fait trois ans, ils, ils viennent appuyer le calife. imam ratib arfan aliou tandian ginnaaw rafet na bu baax a baax te talibe yi ñaan ngir jàmm law fii ci réew Sénégal Afrique sowu jant ak it adduna wërngël këpp ci wàllu mobilisation Mawlid Nabi 2017 amul morom fii si diwaan Missirah de retour de Missirah Dantila Soulibou Ramadan Abdoulaye Choumer Fall pour la radio télévision Solib Rama Dabo ci xibaar bitim réew Fatoumata Seye ma ñu ciy àndal mu gën a fesee nag ca Burundi Bujumbura foofa ay cong am na fa ñu jëlee ci gaañu gaañu yu bari ay grenade lacrymogène la ñu fa sànneeti ñu teewlu ko ci leeral ay sox daal dina jib nag fële ca aéroport bu Bastia ca tey jii ci talaata ji 11 la ñu xamle bii lépp xibaar bu ñu sukkandikoo ci quotidien bii di Corse matin fusillade ba nag benn doomu aadama daal na si faatu kenn jëli ci ay gaañu gaañu yu métti métti kenn moom da koo cof rek bu ñu sukkandikoo ci AFP ñi nga xamante ni daal nañu ko xamle aéroport ba nag naam sox ya am na fa waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy voyageurs yi nag kenn jotu fa évacuer kenn lu ci mënte am mooy ne benn oto daal daal dina daw Espagne daan na teggi mandat d'arrêt européen bi nga xamante ni euh, tegoon nañ ko ci ndoor day njiital catalan bi ñu daal di ko wàccee di Carles Puigdemont euh, candidat la ci élection yi ñu jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre ak ñeent yoo xamante ni ay ministre lañ woon na ñoo ñu nga xam ne ñoo àndoon ak moom daw sa Belgique xibaar boo xamante ni ñu ngi ko daal di jëlee ca Cour suprême ni ki ci talaata jiile juge d'instruction bi moom ba léegi li nga xam ne mooy mandat d'arrêt espagnol ba mu ngi ko téye ba tey kon ñoom suñu ñëwee Espagne dinañ leen nipp tëj si kaso bi sukkandikoo ci tribunal bi nga xam ni ñoom ñoo gën a leeral mbir yi. ñu jeexalee ko ci ki nga xamante ni moo doon jiitu réewu Yémen di Abdallah Saleh moom nag ci altine jiile rebelle houthi yi daat nañu ko faat ay fan ci ginnaaw. ba ñu daggalee li nga xamante ni moom mooy alliance bi am ci diggante ñaari camp yi tax sax ba ay jàmbaarloo yu métti amoon fi nga xamante ni moom mooy sa sanaa ca capital ba faatu ki nga xamante ni nag moom mooy Abdallah Saleh ay atam tollu woon ci juróom ñaar fukk ak juróom fanweer ak ñett ya mu toog sa nguur ga soo moytuwul ay jafe-jafe dina kon gën a yokku ca fi nga xamante ni moo dee ca Yemen rawatina ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy civil yi mbootaayu xeet yi sax gis na ne boobu lépp centre moo gën a métti ndax doomu aadama yi dafay xiif fa bekkoor di leen bëgg a rey guerre boobee nga xamante ni nag day gën du yokk jafe-jafe yi am ci diggante Arabie Saoudite sunnite ak Iran chiite Riyad sax mu ngay joxañ baaraamu tuuma ne uti yi waa Téhéran ñoo leen daal di jàppale ñoom ñooñee nag bañ nañ ko ba tëdd sa naaj wa Viviane Gomis ci la ñu toll football la nuyu naa la. waaw fay naa la Ndeye Kumba Diop. ñu tàmbalee ko ñuy xaar nag ci ligue ay jongante yu ñu soxla askan wi ngoonu tey. waaw dëgg la euh, ndey Kumba Diop xam nga tey jii euh, la ñuy euh, maanaam jeexal lii di maanaam phase de poule ligue des champions yi ba tax fu mu nekk nii tey jii dinañ ci am ay équipe yi nga xam ne faw ñu abale. ak ñoo xam ne faaw dinañu euh, maanaam euh, continuer di euh, jouer tey jii nag match bi ci gën a fës nag moom mooy Bayern de Munich ak PSG di xëccoo bopp rawu gàddu seen poule bi ak tamit kii di Atlético de Madrid bi final woon moom boo moylu rek tey jii boo amul ndam day toog ñu ànd ci ak. Ibrahima Ndiaye voilà kooku nag euh, moo doon euh, ki nga xam ne mooy euh, Ibrahima Ndiaye ñu ñëw ci tableau jogante yi ñu xool gis nga ma jogante yaa ngi nii. ci tableau bu njëkk bi euh, mooy euh, fu mu nekk nii match bi ñuy xaar yi mooy Chelsea Atlético match bu tàng la tey jii euh, Chelsea dafa bëgg a qualifier Atlético tamit moom mi nga xam ne ah boo moyul rek du qualifier ñu dem ci deuxième tableau bi ngeen xool foofu tam gis nga Bayern PSG wax nañ leen ko sànq Manchester United CSKA Moscou lay dajel Juventus day tukki dem fële ca Grèce daje ci ak Olympiakos AS Rome mooy dalal Karabakh Cheikh Tidiane ñu ñëw fii ci Sénégal liquide bi démb seen ñaareelu journée bi ci altine ji tëj nañu ko am na nag équipe bu def lu kenn deful. waaw moom mooy euh, équipe bi nag du équipe bu Ndakaaru du équipe bu euh, Kaolack du équipe bu Mbour. bu Ziguinchor. fan la kon kon nag équipe bu <laughs> Ndar la. waaw gis nga équipe bu ndax la mooy Ndar Géej. ndax Géej moom moom rek a fi def ñaari mat ñaari victoire mm. démb dafa daan ren fekk fii Ndakaaru daan renaissance. benn bal ci dara duc moom jamono moo ko fekk fii daan ko benn bal ci dara kon nag euh, loolu la léegi nag xoolal classement bi ñu xool classement bi nu muy euh, tëddee classement bi gis nga gis nga ndax géej moo nekk ci bopp raw gàddu gi. Mhm. ndaw ge ndax géej gis nga ko moom am juróom-benni poñ. Mhm. Euh, kii ñi ci topp nag gis nga ñoom ñëpp ay ñeenti poñ la ñu am. Mhm. kii di Po kii di Yégo kii di AS Pikine ñu ñoom ñeenti poñ la ñu am. renaissance bi nga xam dañ ko doomu ngi li ci suuf nag waaw ci suuf nag Africa Promo Foot boobu ngay gis mhm. équipe la boo xam ne Thiès la nekk mhm. moom daal ba léegi ñaari match amul ndam mu nga ci suuf waaw waaw mhm. waaw jógaat dina jafe di ah, ah, ah bu teelul jog du baax heure yi Fatick moom tamit dafay soog a yéeg waaye moom mi soogam yéeg bi moom il faut que nag mu jéem a nag. Euh, waaw euh, am ay jéego yu am solo. pour mu nekk olympique de ko moom tam ñoom tam ñu ngi ci suuf kon nag mu ngi noonu. Mm-hmm. waaw ñu jeexalee Cheikh Tidiane ko bis ma dem ci athlétisme. waaw ndax euh, dañuy laajte président bi ñetti nit nañ seen loxo. bokk na Amadou Diaba. waaw Amadou Diaba moom démb doon démb lay soog a officialiser candidature pour jël fédération sénégalaise bu athlétisme mu ngi doon maanaam wane lan la bëgg a def ci athlétisme ñu ànd ci ak. Nafi Amar. moom mooy candidat mbootaay bi nga xamante ay anciens athlètes ak i entraîneurs ñoo ci nekk Amadou Diaba di expliquer ana lan moo tax mu bëgg wutu ki nga xamante moo di Momar mbay soo xoolee résultat yi ñu am temps yi doxul mais nee nañu euh, manque de résultat ba ñu ñëpp suñu faute la tamit parce que ñun ñëpp ñoo suñu faute la donc il faut que ñu xool évaluer naka la ñu mën a def pour euh, athlétisme bi jëm kanam. programme am mi ngi ko tuddee yeesal li nga xamante moo di athlétisme Amadou Diaba di xamle ni ba tey dina tabaxaat li nga xamante moo di athlétisme fii ci Sénégal. vraiment dinañ dem si région yi waxtaan ak club yi ah waxtaan ak école yi waxtaan ak institut de sport yi waxtaan ak euh, l'ASFA waxtaan ak la police vraiment ñu jëm a massifier parce que suñu licenciés yi bariwul mais yooyu yëpp waxtaan nañ si ba xam ne suñ ko defee. dina impulser suñu suñu fédération. ñu def euh, bonne gouvernance suñu ñëwee il faut ñu ñu massifier il faut ñu am ay club yu bëri il faut ñu dem si région yi il faut que région yi am ay ay ay ay club parce que région yu bëri da ngay am ñaari club ñetti club mais yooyu yëpp il faut ñu jàppale leen ñu def formation parce que su amul ay entraîneur du am ku mën a entraîner athlètes yi donc moo tax ñu am ay entraîneur def formation mu nekk vraiment suñu base la formation def ñu am massification am athlètes yu bëri am ay compétition tamit parce que athlète soo formé athlète il faut ma am compétition soo amee ay entraîneur il faut entraîneur bi tamit mën a évaluer boppam su amee officiel tamit officiel il faut ñuy officier donc ñu def ay compétition su compétition yi passé il faut ñu am élite boo xam ne ne dinañu permettre ah ñu demee bitim réew ah ñooñu dinañu mën a yëkkati ah, drapeau Sénégal si kaw mu bokk ci ñetti candidat yi na xamante fësal nañ seen bopp ni bëgg nañ jiite lii di fédération sénégalaise d'athlétisme Amadou Diaba di woo yeneen ñaari adversaire am yi ngir ñu boole seen doole sukkali li nga xamante moo di athlétisme. yeneen euh, candidat yi ñu ngi leen woo turu collectif bi ñu ñëw rejoindre collectif bi ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que su kuy gagné kii liggéeyu laax moom du mën a liggéey ah. donc ñu ñu woo ñëpp ñu ñëw woo leen parce que Sénégal benn voilà Sénégal euh, benn la ñu ngay euh, ñett ñuy xëccoo li nga xam ne moom mooy euh, président su fédération bu athlétisme athlétisme mu Sénégal ñëpp jàpp nañ ne que dem na ba dee ba yàqu kenn ci ñoom ki nga xam ne tamit champion du monde la woon ci wàllu athlétisme di Ami Mbacké Thiam moom nag nee na mbir mi yàqu-yàqu bi yëpp mu nga door ca 2000 ñu déglu ko ci micro Nafi Amar jot na quand même euh, suñu athlétisme bi nekkaat fi mu nekkoon loolu moo moo war tax ñu ñëw jàppale candidat bi nga xam ne am nañu yaakaar ne dina indiwaar athlétisme euh, fi mu nekkoon mooy athlétisme de de l'école de l'IASU athlétisme de de haut niveau athlétisme de de de masse et athlétisme d'élite c'est-à-dire euh, aujourd'hui on manque dañu manque ay élite dañu manque élite si si si au niveau athlètes yi alors dañu manque moyen aussi candidat boo xam ne dina uti ay moyens ay partenaires commencé par l'État après d'autres partenaire aussi c'est normal que ñu wax li fi nekkoon mooy li fi nekkoon baaxul baaxul su baaxoon ñu ne baax na mais baaxul parce que dafa rey athlétisme fukki at ci gannaaw wax naa ko euh, loolu moo taxoon ñu suspendre parce que dama noon li ngeen mënu leen yor athlétisme mënu leen gérer athlète de haut niveau euh, il faut être un bon manager pour gérer mënuñu ko donc aujourd'hui suñu athlétisme ku gis fi mu tollu ñëpp xam nañ ne ñooñu lajj nañu loolu moo waral ñu jóg pour vraiment utaat ñeneen ñoo xam ne euh, ak même ñi fi nekkoon du nekkul ñëpp mais utaat beneen équipe bu bees ensemble ñu ànd vraiment jëmale waa athlétisme si kanam. voilà jërëjëf kooku moo doon Amy Mbacké Thiam yow mos nga def athlétisme. sama kër laay ak jëm géej. waaw kon nag euh, jërëjëf kon nag ma delloo la léegi. jërëjëf Cheikh Tidiane Gomis su noonu la ñuy jàllee ci benn ponk bi des ci xibaar yi mu yéene kaay ñu ànd ci ak Seydina Omar Ba. tey la tey tey jii ci talaata ji yemoo juróomi fan ci weeru décembre ci atum bu jotee ci la premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne di jàkkaarloog député yi ngir àggee leen programme muy aw tëralin yu mu tëral ngir teg Sénégal ci kaw yoonu yokkuteef yéene kaay giir wal ne bi mooy ñaareel bi la yoon mu di ko def waaye na jàpp ne bu tey bi moom dina wax ci moom ndax dossier yi féete ci ku jigi naruñu ko may dara rawatina ci dossier Khalifa Sall Abdou nag bor yi Sénégal amee te maître Abdoulaye waxoon ca Touba gépp di ko dégg ne bor yi dafa jéggi dayo te bu ñu defu ndànk Sénégal dina tàbbi ci guta yéen i kaay gi di yooyu nga xam ni maître Abdoulaye Wade yëkkati na ko neexul ba neexul waaye kaddu yu metti nguur gi la ndax gannaaw ba Amadou Ba mi jëwri ji dénk wàllu finance ci nguur gi génnee daal di weddu lool yi tey jii njiitu réew mi Macky Sall ci lëf gi ay kàddoom lay yëkki muy sàkku ci maître Abdoulaye Wade ak ñeneen ñu mel ni moom ñuy bàyyi di wax ay wax yoo xam ne ni teguñu ko fenn bor bi ñuy wër di wax naan Sénégal moom la amee mais gisuñu leen lu ci jéggi dayoo ba fii weesu wuñu ratio bi ñu tëral mu toll ci xaalis bi ñuy jël mais jëluñu ko ngir fay ay salaire wala ñuy di ko def ci seen bopp xaalis boobee dañu kaa jël ngir tabax Sénégal fexe ba teg ko ci kaw yoonu yokkuteef naka ngeen bëgg ñu ay yoon defar ay raay ay dispensaire wala ay école ba noppi ngeen bëgg wax ne duñu lepp loolu yi mënta nekk yéene kaay gii di las ne kàddu yooyu njiital réew Macky Sall mi ngi ko yëkkati ci conseil présidentiel muy ab ndaje mu ngi doon amal démb ca palais présidence te mu doxoon ci diggante mag mboolem acteurs yëngatu ci wàllu koom-koom amaana sax bu ko béy di añ mi njiital CNP laajul woon laaj boobee du ci wax waaye ci laaj boobee ci la njiital réew mi Macky Sall profité daal di tontu maître Abdoulaye Wade laata moo jox ab app bu toll ci benn jàpp ñaari weer gën ngaa bari tigo ak war yi ngir ñu lijjanti junoo gi am ci seen diggante ndax nag xaar bi mi ngi bëgg yàgg te ñoom nag bëgg nañoo jàll ci leneen zoom yéene kaay ne altine démb ji lool ci njiital réew mi Macky Sall ndax naka la noppe ci levée des couleurs bi mu doon amal ci la daleel ca palais présidence mboolem opérateur économique yi nekk ci biir réew mi muy ñaari ndaje yoo xam ne ni moom yital réew Macky Sall ci kon daal indi ay leeral jëmale ko ci ponk yu bare muy lu ci ni bor bi ñu ne Sénégal amee na ko te maître Wade gis na dafa jéggi dayoo élection présidentielle yi ñuy dëgmal wax na ci conflit muy réero gi dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie xam ne nii moom njiital réew Macky Sall dafa gis ne lenn rek moo ko mën a saafara te moo di kër gi soppi aw doxalin la woon démb ñu bàyyi ko te jëfandikoo jumtukaayu xarala yu bees yi ci jamono jooju la yéen kay gi di Le Quotidien mi ñuy xibaar na yaakaar mën naa am ci mbiri Khalifa Sall gannaaw bu mu nangoo joxe caution bi ñu ko doon laaj mu toll ci benn milliard ak lu teg ci suñuy koppar yéen kay gi di Les Échos pour muy leer du moom moo nangu ne dafay joxe caution bi ko doon laaj waaye ay xaritam ay mbokkam ak ay jegeñaaleem ñoom ñoo wañ loxoom te la ñu ci jublu mooy ñu bàyyi ko mu génn ci biti su ko defee mu a waajal défense am yéen ñi sax ñoo mujjee dajale xaalis bi jox ko wookaay yi koy lay yi muy xaalis boo xam ne ni tey ji ci talaata ji ci lañ koy jébbal doyen des juges Samba Sall yéen kaay gi di l'observateur na bu yeboo ñu def ndànk ci caution bi de ndax am na ay risques yu ci am ndax dëgg la ak caution bi doyen de juges Samba Sall mën na ca sukkandiku ngir bàyyi ko moom Khalifa Sall may ko ak bàyyim négandiku waaye lépp rek mu ngi aju ci xalaat bi Antoine Félix Diome di agent di am ci mbir mi lépp rek mi ngi aju ci enquête bu ndaw bu muy def ngir xool ndax caution bi war a demee nag ba gisal boppam ne caution boobee war su koy nangu boobu bu boobaa doyen des juges Samba Sall du def lu dul tëye Khalifa Sall ci kaso bi as sport ne bu amee ku ñu tëye bu baax delloo ko njukkal ci jaloore gi mu def moo di Aliou Cissé sunu naata ngoy ne jëf ji mu def jëf gënu ko rëy te moo di jël Sénégal qualifié ko coupe du monde 2018 kon kooki mérito nañu yokkal ko salaire am yokku doomi aadama yi koy jàppale ci liggéey bi ndax boo jëlee Aliou Cissé ak juróom ñaari millions yi ñu koy fay weer wu nekk nga jël salaire boobee méngale ko salaire fay mboolem entraîneur yi qualifié seen la ñu koy moo di Hervé Renard mi entraîneur Maroc fanweeri million ak juróom-benn la ko daan fay waaye keroog bu mu yóbbee Maroc coupe monde dañu kaa yokkal salaire ba ñu ko daan fay yóbbu ko ba ci ñeen suñu koppar loolu yi nag boo ko jëlee méngale ko ak juróom-ñaari millions yi ñuy fay Aliou Cissé la mu lay jox moo la Hervé Renard mën na koo fay juróom-ñaari yoon bon li ñuy xaar ci Augustin Senghor mi jiiteel fédération sénégalaise bu football di ko xaar ci nguur gi mooy ñu fair play nag ndax ku def lu rëy war ngaa nag mën a am lu rëy jeexale ko xibaar bi ñu yéene kaay gi di direct info xëye tey ji mu soxal wopp ji di sida ak jéego yi muy def ca Ziguinchor sunu naatango yi ne wopp ji mi ngi wéy di alawtiku askan wi ndax ci diir bu gàtt rek xayma nañ fa lu ju toll ak juróom-ñetti téeméer yoo xam ne ni ñu ngi dox rek di dem waaye ñu ngi doomi jàngoro ji ci seen yaram muy nag lu doy waa ñu jàpp ne lii moom bu ci kilifa yi jógut musiba dina am ca Casamance. Seydina Amar Ba fi nga daanelee yéene kaay yemook fi ñu jeexalee li ñu amoon yéene yëgge leen ko ci xibaar ci Walf TV leeru jamono ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi lu leen fi raw mën nañ koo dabu ci 3w walfnet point com jaa ngeen jëf bëccëgu jàmm ak salaam jàmm ak jàmm jërë ngeen jëf